waa mbokk yi nag tey ñu ngi fii Pikine ñu ngi fendi nag ngénte kuy ngénte Boy Niang bu dégul la càppaacol yi tey nag moo am ngénte ñu ñëw teew fee ak Leewtoo TV ngeen gis tànt bi nii gaa ñu dugg si biir maar day bëgg ci yow sant parce que nga bëgg ci moom sant ko mooy troisième bi. am na sant yàlla. da ngay ngénte. waaw sant yàlla waaw. quatrième bi mooy cat bi yàlla sant ko alhamdulilah ndeysaan suma xalax na nu fata ala xatal. ñu sant yàlla baax dañu waral teewaay bi dañu rek sargal ànd ak Pap Thialis Faye président Leewtoo production pour mu sargal Mbaye Niang. bu la yàlla maye lu mel. Cissé maa ngi ziar. waaw ñu ngi lay ziar baax am nga jàmm. am nga ah, jàmm yaa ngi am jàmm. ça alhamdulilah ñu ngi suñu borom. tey Boy moo am ngeen ngeen teew ci en tant que promoteur. loolu loo ci mën a wax sénégalais yi. waaw li koy wane nii Sénégal ñëpp benn la donc. moom ci làmb ji suñu frère la fekk suñu beneen frère bi am na tey bésu bésu làmb la ñun ñëpp dañu war a ñëw bu nekk suñu frère bu nekk rafet ñu ñëw doxale ko ba mu doon ci lan moo waral teewaay lan moo waral teewaay waaw moo waral teewaay bi donc loolu moo tax ñëw seet si ko Boy Niang kañ koy jox combat waaw incha allah bu ko yàlla defee bu ñu amee bu ñu ko amalee affiche rek ñu jox ko incha allah ñëw ci ngenteel booy ñang kay camara laay njëkkee maa ngi lay ziar. maa ngi bu baax a baax. booy ñang di ngente tey écurie teew lan relation seen diggante booy ñang. la. moom bëri moom mbapat. waaw léegi booy ñang suñu koy mu ngente mu yëgal ñu ko ah papaam yëgal ñu ko il ñu teew fi waaw loolu waral teewaay bi suñu doom la. kooku Guèye Camara. Ibrahima Mbaye bëgg naa la. jàmbaar maa ngi lay fay. maa am nga jàmm. waaw wéeré wéeré waaw. booy nag mooy ngénte tey ngeen teew. question bi rek même duma laaj ci laa lay laaj. lan mooy relation bi entre Pikine ak Fass. waaw loolu lu jiitu lu jiitu lu booy booy ñaar waaw lu jiitu jiitu booy ñaar euh, dañu amoon kóolóore ak waa Pikine. nekkoon ñoom ay xale di bëri ñoom ay mbapat di bëri ñoom aaleen ñoom tey ba ñëw Boy Niang bu gudd ci suñuy loxo sëñ Modou Kara jël Boy Niang turandoom loolu ko bàyyam dëggal indi ko écurie Fass kolere googu daw def di Boy Niang làqu dëggal dese kolere gi nekk biir Fass nekk ci ñaan kon kolere bu mu paase suñu diggante waa Pikine nag xañ na dina am yenn kii rek mais boo xoolee fa mu déparé bu ko xale yi xamoon dañ koy gën di rafetal ah. mais sa écrit bi dégg naa doxatul léegi de. bon sa bi dégg naa doxatul seen écrit bi yéen waa Fass. mais loolu écrit saa bu naan doxatul man daf may jaaxal parce que ren bëri nañu ay combat taaw bëri nañu ay combat di daan di daanu lu dal yeneen écrit rek moo ñu dal c'est-à-dire ñu dañu écrit boo xam ne écrit bu mag la. bu mee bu amee bu toogee suñu leader yu mag yi bëriwul danaan Fass dafa sooxe rek mais li ci kanam réew ñu bët bu soobee yàlla yonent bi waaw bu soobee yàlla yonent bi ñu ngi ci liggéey boo xam bu soobee bu ñu premier yi seetsee dañ gis ci Fass yu doon yoo xam ne mosuñu ko ci xalaat. mais mbir yu mag yi lu leen dal. lu leen mbir yu mag yi lu leen jot. dara dalul leen ñàkk combat rek. ah daan dégg naa ama commerçant bi day xëy tey am bénéfice bu ëllëgee mu xëy perte noonu la làmb mel te du mbëri may gi faase ñoo daanu de ñu daanu ren bari na waaw. ñaa félicitation sax laa lay wax di wax ne liir bi yàlla na dund am ndey ak baay. waaw amiin ñu ko ñu ñëpp maa ngi kontaan bu baax a baax a baax di di di di saluer bi bu baax di kontaan bu baax a baax ama Pape Thialis ak jaw yàlla moo ñu boole. croisement bi relation promoteur ak mbër la woon waaye dafa dépassé loolu ci lu ma nekk dama koy neemeeku mu nekk grand bu baax tey maam bis bu toll nii di ngeen sama taa moom mu déplacé wu ñëw ànd ak jaw vraiment lii teraanga la maa ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bu baax a baax ak structure bu mu yor to Leewtoo suñu moom jëmale leen ci kaw kontaan nañ ci barke suñu wasila Cheikh na Cheikh Sall bi ñu ngi koy ñaanal lépp lu nekk ci kanamam mu avancé yëpp lu nekk suñu kanam suñu borom sottul ko parce que bu baax la mënoon na ne boo ñaa sama rakk la mu woo ma te su boobaa tamit damay kontaan rek mais bu déplacé wu ko ànd ak jaw yëpp bu baax a baax di ko ñaan yaa suñu borom sotti léppam di wax ni tak lamb lamb ji gars yi namu nan ko gars yi ko lango dem mais laaj naa ko sànq Eumeu Sène daa mel ni yàgg Eumeu sa mag jalis jig na leen de daa tëgg Eumeu mu ngi roi des arènes mu tëgg la nga daan tëgg nga daan Sa Thiès ak Sa Thiès tëgg ndeysaan daal xam nga moom mu ñëwee comme ni mu waxoon dafa ñëw fekk lamb fu mu tolloon ñun xëccoowuñu day ñëw pour te apporter suñu tuus ci làmb ñëw boobu lañ ñëwee ci làmb te apporter na ko chaque instant rek fépp foo xamante ni làmb day am problème rek day ñëw dugal tuusam ñu ngi koy wax ni làmb nam na ko parce que produit wu làmb la te ñëpp ko ndam ñëpp la amal jàmm di jàmm di wax ne mu ñëwaat incha allah ñu ngi leen di bëggee baax di xam nga xam ni ñu ngi si làmb ji allah aussi ren dinañ jéem a taxawal ay làmb donc moom bokk na si mbër yoo xam ne ni dañuy respecté contrat donc nekk na ku neex a liggéeyal xam aussi ñoon ak yeneen mbër yoo xam ñu ngi si dëkk bi neex nañ liggéeyal je pense que làmb ñu ñoo ko moom suñu sport national la donc ñun a téye bu moo tax ñu jàpp te incha allah dinañ fexe ba làmb ji aussi gën a jëm kanam. mook Tapha Tine neex na. waaw si moom la jàppandal rek. <laughs> moom Balla moom si moom la jàppandal en tout cas mbër yi ñoom la si ñoom la promoteur yi ñu ngi fi pour tëgg làmb mbër yi bu ñu raisonnable par rapport ak cachet ak a taamu mbër rek je pense que lamb dina am incha allah. waaw kañ lañ lay defal nii. Eh seen téléphone yi koy am normal de séeri booy ñaa ñëw na waaw waaw jéppiwuma la barke feexu lu dul di ma toggal lu neex may lekk di ma jox may naan lu sedd toog sama wet di waxtaan ak man ndam li moom moo ñu koy gën a bëgg moo tax amuñu lu rek loolu kese la. nga jàppale ci récupération entraînement préparation. bien sûr bien bien sûr bien sûr. Ah, di ko consolé. tiit wala doo tiit. sincèrement ma tiit nag. loolu billaay du ma tiit nag parce que da ngay ni ngay nekkee ak nga gis fulla gi mu ciy jox entraînement yi ak jom gi muy demee da ngay dem ba loolu bon pour le moment ci combat yi mu passé ban combat moo la ci gën a neex. ah yëpp rek pratiquement yëpp dama koy ñaanal rek moom li mu bëgg rek ci carrière am yàlla defal ko ko rek ndax moom fu yokkee ñun ñu yokk. xam nga nee na day seetaan lamb. mais nag xanaa da ngay seetaan lamb. nit ñaa ngi wax naan tafaatin ñi ne Balla Gaye koo ko yéene yow yéene nga ko Balla wala tafaatin. non ku ñëw man ku ñëw baax na loolu lamb xaw ma si lu bari ku ñëw rek baax na. bu Balla Gaye bëgg nga ku ñëw baax na. ku ñëw ku ñëw rek baax na. am nga confiance. ku ñëw baax na. Ah. ku ñëw baax na. ñëw baax waaw léegi nag lan ngay wax euh, famille làmb ak li euh, mu nekkandoo ci làmb ji kutu fa la baay bala ko du maane mbaay Cheikh Yirim mooy sa maam Yirim ay sa maam Yirim ay sa maam eh booy ñaanee na kontaan garminga dawda jamanka doni garminga chéri boyña chéri neleen chéri boyña neleen Père Gana maa ngi lay bëggee waaw maa ngi lay fay doom ngay ba am nga jàmm waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax mbër moo xam ne yaa koy tëggal petit combat grand combat ba yàlla def tey ñu mu bokk si mbër yu mag yi mu am tey soxna yàlla may ko ci bébé mu koy ngénte boobu ànd bu yàgg lu ci gànn mën a wax. waa di ñaan yàlla rek doon ci màgg te am ndey bàyyi te yàlla defal ko xéwal yàlla may ko jëkkër mbër nag jigéen ma ko ndax man ak moom ba ñuy ànd boobu na ba tey yàlla ñu teeye ko loolu kontaan nañ ci trop des nag la kon mel am na wax mu bu la bu neex a uuf la wala. waaw boo ñaa moom neex na wax quoi parce que boo gisee sax man du ma man man du ma waxee sax dañ naan li ma li ma si moom moo tax mais li mu wane wane na xale bu neex a àndal la xale bu yar la xale bu joxe cër la xale bu am fu mu teg la waaw moo tax lu moom dama ñëw soobu ci bu baax a baax a baax waaw. maanaam yaa moom seen diggante ndax ngay tëgg nga koy tëggal mu lay fay moo leen boole wala. non boo ñaa ma koy tëggal mu may fay boole wuñu Boy daa fekk mooy tëggal papaam du ko tëggal ay mbafat Boy Niang boo doon jël ci sabar yi man ma sama papa ñu ne nga ñëw sàcc mbafat nekk mbër moom moo koy tëggal kon man ak moom ànd bu ànd la boo xam ne bu yàgg la waaw waaw nekk ànd bi daal du àndu xaalis waaw sama doom la quoi mais xam nga tey dama naan Boy Niang tey nekk na Boy kese Boy Niang àddina bu yëpp la bu xewlee géwél yëpp a war a ñëpp a war a ñëw def seen participation parce que ñun fu bokk la amuñu leen loo xam ne dañ ko doon noo bu kii ñëw wala na ñëpp ñëw affaire bi neex parce que tey suñu bés la daa war a neex. a waaw. waa Ndondol. waaw waa Ndondol ak lay nuyu ak waa yaay. maa leen sant di leen gërëm ndax ñooñu moom. fa laa dëkk fa laa yaroo. fa laa ñu defal ma lépp ba ma toll nii. ba ñëw Dakar ba neex ak booña. loolu sant yàlla la. o fogole séeréer. ñu koy gis naan ñun ñu koy sin naan ñun. noonu bii ñu noonu nekkee. def gànna jóg. ak Ndondol fa gaat faay fa faayaay xani koy boñaawu jigu bés i ngarote ndegele wiin we fa mbomboy fa dadak fa talay fa nguy fa seeseen mbër tey mu mel ni contentement am na de daan na mais tey da mel ni ku gën a kontaan waaw kontaan nañu bu baax parce que dañoo am bis xam nga di ngéete suñu taaw yàlla def ñëpp ñëw xarit yi am di jàmm yi soppe yi waaw ñuy kontaan bu baax a baax parce que nit amul lu ñu bésam daal ah waa Pikine suñu ay fans suñu ay xarit suñu ay mbokk suñu ay doom ndey ñoo xam ni ñoo ànd zéro ba fi ñu toll nii dañ kontaan bu baax a baax a baax di remercier ñëpp di kontaan ci ñëpp di remercier waa Pikine ak kilifa yi kilifa yi fi teew ni ëmm Pape Thialis ak yëpp ak waa kër Cheikh Saad bi ku lim daal da ngay juum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ak waa Pikine yi fi teew yëpp di wax ni kontaan baax ma dégg léegi kii di la tëggal Père Gana ngeen ànd ànd bu yàgg ma laaj ko mu ne sa digganteeg yow moom du affaire xaalis la loolu koy confirmer. waaw loolu lu am diggante yàgg na ba ñuy njëkk a tëggal duñ ko jox sax 3000 yu wala 5000 boobu ay combat yu ndaw la yeeg ñuy fay 80 000 xam nga ba léegi nii. an famille day ñëw toog kon diggante romb na loolu daal xam nga suñu père la suñu lépp la ba muy tëggal sama papa Mbapat boo maa doon jëri sabari waaw waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku teew fii nga nekk suñu nit suñu am di jàmm kontaan nañ ci yow bu baax baax baax. madame moom mooy kan ba ma ko doon tënkal. waaw madame mooy loolu soxna rek xam nga mooy loolu nit moom yàlla moo ni boole rek affaire yooyu boole amee dërëm ngeen bokk boole amee téeméer ngeen bokk loolu la àdduna noonu la bokk ndey ak baay bëggante te yàlla tax xam nga moo lool mu ngi toog di gérer gérer yombul mais mi ngi gérer yàlla baax na quoi. du la fiyee. waaw <laughs> ah, loolu du ñàkk mais xam nga noonu la c'est normal c'est évident du ñàkk ku bëgg fiir waaw waaw <laughs> ah, mais kontaan nañu di doom yaay Aziz Dine vraiment sonn na ci xaw yi baax a baax sama waale sama lépp la maa ngi koy gërëm Père Gana moom kenn kenn gërëm moom mooy moom moo yor xew bi kontaan nañ ci ñëpp incha allah. madame looy wax si li nga dégg sa borom kër wax ko say goro wax ko ñëpp wax ko looy si dolli. ah di leen sant di leen gërëm rek maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñu def déplacement rek bàyyi seen it yëpp ñoom ñu ngi di gërëm. Aziz Aziz faw mu wax Aziz moom du mën a bañ a wax xanaa dañuy may dara sax. waaw waaw waaw kontaan ci yéen rek ndax kii lu njiit njaag mooy njaag moo fondement moo raax di per gànna dañ leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm ku ne xam na ne jot yombul te jamono ji ku bëgg ci làmb actualité bëgg a seetaan loo xam ne dafa dafa avancé loo làmb day yeewaat làmb day yeewaat jëmalewaat làmb kanam. yéen rek la mën a seetaan kon yàlla na yàlla defal leen jàmm non Leewtoo TV foo tollu sa kër yaa ngi Leewtoo pour am dara trouvé daa wuyu borom ku xëy yaa ngi Leewtoo ngir am dara Leewtoo rek TV. grand bëgg naa la. waaw maa lay fay maa lay fay bu baax la. tey de sa leader moo xew la nga teew. moo xam rek sa waa ji moom xam nga ñaata teew bésam wóorul parce que suñu nit la suñu lépp la xam nga suñu mag la suñu lépp la daal waaw. waaw te xam rek bu xewlee moom a bàyyi waaw di suñu lépp di nuyu papam di nuyu yaayam xam ak jabaram bi yëpp xam na kontaan nañ si bés bu baax a baax waaw. mais dama dama liir bëri ki démb xaw ma dem ci journal da nga def benn sox xaw ma cootu xaw ma affaire yooyu loolu loo ci mën a leeral. mais dama defoon benn choc sur moto dama jógee ma invité benn émission mooy dem si autoroute bi après xam benn tax moo ñu mbokkoon affaire yooyu mais sama fii moo moo épaule bi ak si sama genou bi quoi moo xawoon kii quoi mais instant yii tane bu baax maa ngi sant yàlla. mais mbër yi du ngeen bàyyi non xam nga rek ba tey moom yàgg nañ na jour boobu moom cat la rek cat dafa gaaw ah. foo jëm yow am nga combat. waaw gars ñu ngi dox sama combat yu bëri mais xam nga rek ba léegi adversaire yi ñoo commencé. yaram bi ku muy laaj. non instant yii kay moom ñu ngi dox maak Baara Ndiaye mais ba léegi xam nga rek mu ngi commencé rasu. dina neex. dina neex parce que adversaire de taille lañ. adversaire de taille bu neex lay doon. waaw merci beaucoup jaajëf. non yow